di leen nuyu yéen ñëpp daa am mbégte ci laaj bi ngeen ma laaj ndax soo gisee ñu teew fi tey waa association Angle Bess bi nga xam moo nekk hôpital Matlaboul Fawzeyni man dama cee bokk man maa nekk secretaire chargé de la femme depuis bañ ko tàmbalee ba léegi man ak ñoom ñoo ko ànd journée mondiale bi heure bu ñëwee rek man ak ñoom ñoo koy ànd lu dul looloon ñun dañ daan organiser suñu bisu bopp di def suñu don de sang bopp di ko def waa Ahlu Café waaye journée mondiale bi nag moom chaque année man ak ñoom ñoo koy ànd bañ ko tàmbali ko di ko def ba léegi ñu bokk ak ñoom liggéey bi ñu am ci yëg-yëg nag mu doon loo xam ne ndigal li dafa jóge woon ci Cheikh Saliou Mbacke radiyallahu anhu yal na yàlla yokk leeram taas ñu ci barke moom moo ko joxe woon ndigal ba hôpital bi door ubbi mu ne man Saliou de xam naa su ma ko wootee ku man di nga ñëw ku mënut di nga ñëw kon day ëpp waaye nag nañ ko bàyyi rek ku ci sa wàll nekk di nga ko jël si waaye bokk na ci jàmm yàlla yi gën a mag ndigal loolee nag ca lañ nekk ba nëgën si heure buñ ko wootee nag ku sa wàllu nekk rek yow yaa ciy ñëw mu doon loo xam ne lu am solo la ndax maye deret doon na loo xam ne soo ko defee di nga amaat wér gi yaram te docteur bi ñu la saytoo xool sa wér gi yaram xam ne mënoo maye deret doo maye boo feebaree tamit dinañ la nga dem fi nga war a fajoo bis boo mayee deret tamit analyse boobu nga waroon cee fay lu seer dañ la koy may analyse bi bu génnee su fekkee amoo benn doomu jàngoro ñu wax la ban groupe nga bokk sa xel dal suñ ci gisee doomu jàngoro tamit dinañ la orienté saytu la ba nga faj ba wér loolu mooy njariñu may dal gis nañu ne daayira am lu ko yàgg naa dox ci social bi mbas mi ñëwee ci réew mi ba tey lan moo ci nekkoon seen taxawaay. waaw waa daayira am lu ko fi mbas mi moom bu ñëw ci réew ba léegi xam ne ñëpp gis nañ suñu taxawaay ndax bi nga xamee ne mbas mi ñëw na couvre-feu bi ñëw ñun dañoo daal di dem rek dal ci daara yi donc ngay daara yi di leen toggal ay reer comme duñ dañu daan yalwaane te kon ñoom ñun ay soxna daara lañ ñoo xam ne daara yi lañ war a jàppale ak néew ji doole yi ñuy togg ay reer nag leen ko yóbbu jaar ko ci suñu ndigal kilifa nag tàggu kilifa yi daal di dem autorisation ci commissaire mu jox ñu ndigal loo xam mën na ñuy dox ba guddi di dem ci daara di leen yóbbul ay reer di dem ci néew ji doole di leen jàppale wut ay cere tamit tay ko boole kook meew di ko jàppalee sëriñ daara yi waaw ba léegi nag bàyyi wuñ lépp lu ci mën ñu ko ci def. ndax message waa xanaa di leen lancé après ni leen comme bàyyi nañ couvre-feu bi état de bàyyi nañ ko nañ continuer ci lañ daan def di di raxas loxo yi ba set di takk masque yi tey sorente distance bi ñu respecté ko loolu suñ ko defee yàlla dinañu ci mën a musal waaye buñ ne rek bàyyi nañ couvre-feu bi rek nu lu neex waaye na def déedéet nañ jëfee ndigali kër docteur yi jëfe ndigali kilifa yi boole nag boole ko di ñaan yàlla suñu borom mu jële fi mbas mi loolu daal suñu ci defee yàlla suñ ko defee yàlla mën nañu cee musal xanaa ñuy sant yàlla bu baax rek comme ni ma ko daan waxee samay kàddu rek dañoo nekk ci jamonoy tuub ndax lii xew ne koo gis xam nit ñëpp dañoo war a tuub delluwaat ci yàlla su morom ndax yàlla amul soxla ci démb démb wéy na suba ñëwagu tey rek la war nañ tuub delluwaat ci yàlla ndax yàlla heure boo tuubee mu jéggal la jéggalu suñuy rëcc rëcc te jéem a def lu baax jaamu yàlla jàng alxuraan jàng xasida te nekk ci liggéeyal sëñ Tuubaa ndax liggéeyal sëñ Tuubaa rek lañ fi gis suñu mën a tege loxo ndax da lay raxas ba nga set ñu yégal la ba ci kaw ah ñu fa góorgóorlu ci jaamu yàlla rek ak fonk waajur yi ndax liggéeyal sëñ Tuubaa tamit mi ngi tàmbalee tàggal say cër ci ak jaamu yàlla ak fonk sa ñaari waajur loolu daal mooy samay kàddu yu mujj ak di leen dénk la sëñ Tuubaa daan dénk mag ñi rek ci njaareem liggéey ak muñ ak jaamu yàlla